làmb ji nga xamante ni dox na diggante démb euh, Eumeu Sène ak Tapha Tine fële ca arène nationale jooju ko ni jeex Tapha moo am ndam ci kaw ki nga xamante ni moo di euh, Eumeu Sène làmb jooju seex naka nga koy jàngate làmb jooju làmb ju yàgg la ji waroon taxaw taxawu woon bu yàgg mi nga xam rek Eumeu Sène boo xoolee a bàyyi xel Tapha Tine hmm. ba yeex koo jël ñu hmm. jël Tapha Tine daanaka fin carrière la jël Tapha Tine foofu dañuy a perdre doole ci lu xaw a bëri hmm. mais Eumeu euh, fi fi ngeen toll ak fi xam foofu Bawol toll ci combat parce que Tapha Tine dafa bëgg bëri jëg bi yàgg na loolu parce a yàgg dafa ñëw Ama Baldé ba Demba Ndiaye dafa ñëw indi defet Pikine ñu koy jooy no Pikine ba Eumeu Sène dafa ëpp bes loolu moo tax làmb ji mais loolu moog làmb ànd mais mooy mooy moom moo man làmb ji bi Tapha Tine defee trois at foofu Tapha Tine war woon jógaat mais Eumeu Sène dafa jóg jàpp ne moom combat moom noonu noonu lay jeexee Tapha Tine de tamit mbër boo yàggee bëre lu combat gën a yàgg ngay gën a ñëwaat ci ngay gën a nekk si ji Tapha Tine mu gën gën a nekk si làmb parce que boo xoolee boobu kattan amu seen 140 kilos ak 130 kilos différence de muy gën a yàgg muy gën a ñëw te amu seen ndaamal màcc la dafa xaw a gàtt bi mu bi ko bi mu ngoofaanee Tapha Tine bi Tapha Tine rek day jóg ànd ak day jóg day moo tax mu teel ko bàyyi mais foofu jërëwoon sax nguufaan xamaa bu bu fekkee day dabu paqu ngeemali mais du ko jot parce dafa xaw a day reculer benn pas dajji mâchoire bu ko doon ci mâchoire day gën a kaaw du jógaat mais Tapha Tine doole Eumeu moo gën a pare mystiquement mais Tapha Tine kattan moo ko gën a ci doole gën a wóorub sëriñ moo feeñ jéem ci làmb ñu gis ne Eumeu dafa gagné ci xeex waaw mais dafa gagné woon ci xeex mais mënu ko continuer parce que Eumeu Sène benn coup la jël pare ci làmb ji Eumeu Sène boo ku ne xam ne ni mooy loolu kon Kor Tapha Tine daf ci am benn bu dal waaw Kor Tapha Tine jël na ci benn coup ci mâchoire bi loolu moo tax bi mu jàppee tànk yi mënu siggi loolu moo tax Eumeu Sène benn instant daf mel ni lu lu jaxasoo quoi ci ci dernière song bi dernière song bi muy song euh, tayeetu ko parce que day bañ a jëlaat coup mu bañ a jàppante waa jëlaat coup mu gën a ñaaw boo xoolee Eumeu Sène da doon jéem a tënk Tapha Tine sax di ko jéem a tënk ci bi ñu jàppante muy jéem a tënk tànk yi mais boobu daanaka kaaw na

waaw adversaire yi nga doon bëri ak adversaire yi ngay bëri bokkul léegi nga ñëwoon ñu ci ëllëgu ñaari mbëri ëllëgu Tapha Tine ah, moom ah, day may Sa Thiès chance ko bañ de bu ko Sa Thiès bëggee mënu ko bañ a may chance mais nag lu tax gars yi di wax Eumeu Sène lu tax gars yi di Sa Thiès Tapha Tine mais Sa ah, Sa ñoo ko bëgg parce que loolu dafa arrangé Tapha Tine dafa arrangé Sa Thiès mais Tapha moo ko arrangé ñaar dajee nekk Modou Lô bu daa Tapha Boy Niang bu daanee mu jël waaw boo ñëwaat Soudan du du bëgg a jël Tapha Tine kon mu la dem xaar Siteu Lac de Guiers fee fekkee Siteu moo Lac moo daan Siteu Lac dootu mën a bañ combat jàngale nekkaa foofu combat revanche dee Eumeu Sène nag Eumeu Sène Eumeu Sène moom mënut a bañ a may Sa Thiès chance bu ko Sa Thiès bëggee mënu ko bañ mais dafa mel Sa Thiès nag Eumeu Sène moog Balla dafa mel seen combat bi mi ngi mi ngi ci la mais démb danoo dama dégg ci Bécaye Mbaye mu ni maanaam lamb ji démb mag mageel def ci feeñ quoi Eumeu Sène ak Tapha mel ni Eumeu Sène dafa nekk li ñuy wax fin de carrière Bécaye Mbaye moom noonu la jàngate làmb ji quoi xale bi moo dominé mag ji maanaam doole def ci feeñ tamit démb waaw mooy li ma la wax bi doo jël mooy li ma a ko jëlee moo tax daanaka combat am seen na fu mu koy yegg mais doole ji dafa feeñ dafa xam dafa am kattan bu mu rek ama seen da koo bàyyi kon kon loolu loolu Bécaye wax loolu gis nga ko ci làmb loolu dafa am ci làmb ji dafa dafa am doole am seen dafa jëm mag mais est-ce que loolu tamit mënuñu koo gis booy ña Cité Lac de Guiers. Cité Lac de Guiers non Cité Lac de Guiers moom Cité daanee surprise moo am waaw. loolu pourquoi pourquoi nga ne bu Cité daanee surprise moo non Lac de Guiers Cité da ko ëpp doole te Lac de Guiers moo nekk mbër moo xam ne bu amee combat day entraîné soo amul combat day entraîné te mystique la jëmmi Lac de Guiers rek mystique la comme ni ko gars yi waxee. mais Cité dafa amul bëre bu daan Lac de Guiers wala dafa amul doole ju ko daan wala pourquoi Cité daan nekk surprise pourquoi Cité warul mën a daan Lac de Guiers. non Cité du du bëre bi du doole ji. waaw amul bëre bu daan Lac de Guiers amul doole ji daan Lac de Guiers. te Lac de Guiers moo ko daa xeex te Lac de Guiers mbër la moo xam ne dafa nekk offensif moom bu song te Siteu tamit daanaka moom ak songam songam mais Siteu tamit du jaay lambam de Siteu songam day woon noonu mais c'est que Siteu bu songee Lac de Guiers juum erreur am quatre appuis ah. kon nag Siteu boo ko doon am loo koy digal ci combat bi lan la Siteu mu ko digal ci combat da ah, juum juum so bu bu bu njàmbandee mu fexe mu ko fàq dama def ko arab kon Siteu moom lu mu def tout pour ñu mën a jàppante loolu moo gën. da da ko dóor benn benn da benn benn dépla déplacé ko. su la liggéey su la liggéey xoolante rek mu mu mu jublu ko par par carap bi. mais du la mais bu dee bu dee kii nag bu dee euh, Modou Lo ak Boy Niang. Modou Lo ak Boy Niang boo xoolee ñaari mbir ñaari xeexkat la mais pour man Modou Lo mu daax xeex. Hmm. waaw pour yow Modou Lo moo daax xeex. moo daax xeex waaw. mais Boy Niang Boy Niang tamit li ñu seetlu ci ay combat moom kenn mosu ko yóbbu Ardo. dafa am garde non xeexu làmb ak xeexu boxe bokkul de mun loo xeexu làmb lay xeex. xeexu làmb waaw. xeexu loolu la fa feeñ ci làmb Eumeu Sène ak Tapha Tine dem ndax ñëpp dañ ne Eumeu mu xeex bu doon Modou Lo Tapha ci génn. waaw moo ma la xeexu làmb ak xeexu boxe bokkul taxawaayu làmb ak taxawaayu boxe bokkul moo tax ñaari mbëri boo leen tëgalee ngay daal di réer. mun hmm. loo moo nekk mbër moo xam ne bu lay jàpp day door bu lay bàyyi da lay dóor boo xoolee bi muy kaawal lees de door na ko ba mu kaaw mu sëgal ko jàpp fekk fekk fu mu kaaw na bi muy door kayre mu daanu tamit da ko door mu daanu mu sëgal jàpp fekk daanu mu la mu nekk mbër moo xam ne bu lay doo génn da lay bu lay bàyyi da lay dóor goosu mun loo bi pour nit yokk mucc ci mun mais booy ñaa koo xam-xam ne day moytu booy ñaa dalay yóbbu ci làng ba Balla Gaye Balla Gaye boo xoolee bi muy daanee mun loo sax dem na arro tuñ mi teepeeku na li muy gaaw gaaw dem na arro léegi maanaam booy ñaa danoo sedd ni maanaam moom mbëru làng la moom moom maanaam pour nga moom pour pour mu dajee ak Modou Lo ñu xee dina yomb. non boo ñaa mbaru laa ngi da koo dab de parce que boo xoolee bi bëri euh, ak saako yore ci la xaw a bii bëri ama moo diri ama neex moo dab boo ñaa moo diri sa combat bi bii bëri ak sos sos moo arrêté boo ñaa moo diri sa bii bëri boo ñang bu géejawaay boo ñaa moo diri sa kon mbaru laa ngi da dab waaw mais loolu la dañ ci ci combat ak bu Tapha Tine bu ko Tapha dafa mel ni kuy daal dafay moytu Boy Niang dafa parce que bëgg na dóore mais ko ko dóor bari na loolu am seen différence seen ah. seen kii seen point faible foofu gis nga Malick Niang bëgg na boo ko dóore mu jaxasoo ah, dafa ñemewul encaisse waaw parce que Malick Niang gis naa ni contre moom ak Ama Baldé ndaka la jël ko rek la am ci jeex am na mbër yoo xam mu jëlee ko day kon kon kon moom na moytu ko Modou Lô Boy Niang moom mënu ko moytu sax parce ko jël moom xanaa xew bu ko jëlee mu ba mu nekk ca mu bañ a yi naan Modou Lô du attaqué Boy Niang moom it du attaqué lamb jooju mën nañ caa séentu niil non lamb jooju moom du niil hmm. déedéet ah mais du attaqué Modou du attaquant loolu loolu làmb jooju nañ def ba dund. boo ñaan mu la dafa Ama Baldé ga di ma reer. déet mais Ama moo dox wuti moo déclenché. ñu daje. waaw ku mujjee arrière. ku mujjee arrière. Ama dafa jël ku moo tax mu arrière. waaw boo boo mën naa jël ku mais maanaam Ama bu taxawoon di léewtoo. làmb ji man man du gaaw noonu. non loolu moom mu loolu moom. niiru làmb bi ah. làmb moom du yomb. waaw mais gaa yi nag ñu nañu wax ne nii. tegee ci. Ama Baldé Modou Lô moo déclenché lamb ji li waral mu gaaw. Ama moo déclenché mais dafa mujjee bàyyi parce at ñu déclenché Modou dafa jël ku. waaw mais ku ba naa ñëw jëmal ci ah, mu daan la. fekkee day xaar pour a ñëw seen combat bi passé a jàppante Boy Niang moo njëkk a soom moo njëkk a déclenché kon du xaar. Boy Niang fausse garde Modou Lô garde waaw mais loolu si dara ci boo xoolee Modou Lô moom bu a naqaree xeex si làmb ji kon kon Boy Niang am na problème kon nga bëgg wax Boy Niang moo problème Modou Lô rawatina Pikine gi nga xamante nii jamono jii moom ku ne xam ne ne Pikine seen affaire na Ama Baldé daanu na Eumeu daanu na léegi Boy Niang mooy teg fa jeel sànni tàcc bi waaw Boy Niang moo teg fa jeexal sànni tàcc boo xoolee Boy Niang am na loo xam bu ko bëréwaalee ñëw ne daa Modou Lô fa foos li daal Ama mën na daal de mënoo ne ko mën ne ko mbër moo xam gan na de. Hmm. waaw mbër waaw loolu tamit loolu tamit dafa jar a bàyyi xel ndax Modou Lo mbër mu mag la. yàgg yàgg na si làmb. mu la ba bëreeg moom force de boo ñëwee da nga ko jox cër dal tey xaar mais boo ñëwee ni ko sarax da nga fi jógee samay saal bi sama koñ nekk da nga fi jógee moom yaa fi jógee moom. waaw <laughs> moom Adra ñu ngi lay gërëm borom càq-càq bi. waaw naa dafa leer. borom yaa càq-càq bi ñu ngi lay bëgg ba càq-càq bi bëgg nañ ci yow